asalaamaaleykum mes chers internautes solution TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen wax ne leen dal leen ak jàmm comme ni ngeen koy defalee à chaque fois rek di leen dégtal lépp loo xam ne rek moo gën a fës si wàllum actualité ba tax na ndiki tey dañ koy daal di door rek ak Moustapha Diakhaté nekk l'ex président du groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar moom nag daal dinay àddu ci wàllu amnistie bi nga xam ne rek ñu ngi koy def ñu ngi koy wax ci mbirum ki nga xam ne rek moom mooy a sunk waaye tamit ak prisonnier ak détenu yu euh, politique yi euh, li ni mel nag la ki nga xam ne moom Moustapha Diakhaté euh, daal di addu moom nag nee na la nga xam ne rek mun naa ne la nga xam ne rek mënu ko comprendre mooy que ci mbirum Ousmane Sonko ñu gis ci ki nga xam ne rek moom mooy Pierre Goudiaby Atepa ak Alioune mi nga xam ne rek ñu ciy daal di addu ñoom moom nag mu Moustapha Diakhaté ma ngay xam lekk ni ñoom ñaar ñooñu leen lu tax ñu ciy wax mooy ci wàllu ethnie lañ ko daal di teg ak i tamit fa nga xam ne ñoom ñoo bokk fi ñu dëkk ci loolu lañ ko tek Euh, ci mbirum Ousmane Sonko ñun taxaw euh, ne ne ay médiateur lañ maanaam ñi nga xam ne rek ñoom ñooy dox euh, tànku jàmm neen nag li ni mel ñoom loolu moo tax ñu daal di ci wax mooy que li ñu bokk fu ñu dëkk ak li ñu bokk ethnie moo tax ñu ci daal di àddu moom nag mu daal di indi li nga xam ne rek moom mooy wàllu ethnie daal di koy dugal ci boobu lee mbir et que nee na Ousmane Sonko ak ki nga xam ne rek mooy président Macky Sall seen ay mbir euh, ñoom nag laale wuñ ci euh, dara li ni mel nag moom ba léegi rek ma ngay woy di continuer que ni Ousmane Sonko la nga xam ne rek moom moo ko joteloon ak Adji Raby Sarr mbirum privé la moom Mame Mbaye Niang aussi euh, mbirum privé la mais Ousmane Sonko moom moo ko daal di jël def ko mbirum politique waaye tamit def ko mbirum institution li ki nga xam ne rek jaxate daal di yëkkati ndax nee na li ni mel Ousmane Sonko daf ko daal def ngir yàq li nga xam ne rek moom mooy euh, dëkk bi et que mi ngi xam que ni mi ngi dégg ay waxtaan euh, am ci diggante ñaari leader yooyu léegi di président Macky Sall ak Ousmane Sonko nee na nag wàllu amnistie bi ko président Macky Sall defee euh, na xam ne ne que ne def na lu doy waar def na lu grave ci mbiru Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko dafay def ay mbir yoo xam ne kenn rek mënu koo dindi kenn mënu koo setal kon nag ma koy daal di bañ a dugg ci wàllu am wala si bi nga xam ne rek am na si ñenn ñoo xam ne ñu ngi ko ci bëgg a dugal ndax bis bu ci duggee rek mën naa ne mbir mi dina jéggi dayoo et mbir mi aussi dina metti ci moom lool lool lool li ni mel la Moustapha Diakhaté euh, daal di xamle et que tamit mi ngi xamle que ne réew mi jamono ji mi ngi ci jàmm ak salaam ginnaaw ba ñu tëjee ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko euh, parce que moom jàpp na ne que ne Ousmane Sonko moom mooy problème waa Sénégal et que ko tëjee gis na ne mbir yi mi ngi dox mi ngi dox normalement sénégalais ñi ngi euh, doxi li nga xam ne rek moom mooy seen mbir et tamit institution yi mi ngi dox. comme comme ni mu waree nee na nag amul benn problème boo xam ne am na fi kon mën naa ne jarul wàllu amnistie ak li ni mel moom daal bu sañoon jamono ji Ousmane Sonko daal di des ca la nga xam ne rek moom mooy euh, prison ba waaye nag père Pierre Goudiaby Atepa moom nag itamit nekk ab euh, médiateur comme ni mu ko waxee tantôt euh, di dox tànk jaamu ci mbir Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall moom naka daal dinay euh, joxe waat beneen révélation ginnaaw bu waxee que ni Ousmane Sonko euh, dinañ ko euh, libéré moom ak ay détenus moom Pierre ate pa ca la mu taxawoon ba léegi rek ca la daal di nekk ca RFI la moom architecte bi li dal di xam xamle que ne président Macky Sall jamono ji la mu bëgg rek mooy que jàmm ak salaam sénégalais yi dund ci jàmm ak salaam et tamit Ousmane Sonko mën a doon li nga xam ne rek moom mooy candidat ci yi nga xam ne dañ koo décembre 2024 euh, bien vrai que ñi ngi waxtaanee ngir à ce que rek report euh, bañ a am maanaam ñu def élection yi ndiki 25 février 2024 euh, bii lee moom président Macky Sall rek bëgg-bëggam li ni mel la mooy Ousmane Sonko doon li nga xam ne moom mooy candidat ci élection yi nga xam ne rek dinañ ko daal di jàpp ci lu yàggul dara waaye tamit moom président Macky Sall la muy sàkku rek mooy que message am bii la ñu daal di koy jàllaleel Ousmane euh, Sonko ngir moom rek mu mën a jël li nga xam ne euh, moom mooy ab euh, décision Pierre Goudiaby Atepa nag ma ngay xamle que ne moom kat yónnee na fa nga xam ne rek wala gisante nag ki nga xam mooy Ousmane Sonko ba xamal ko léeg yóbbante bi nga xam ne rek moom président Macky dina ko yóbbante mais Ousmane Sonko lam ko daal di xamal mooy que il faut mu waxtaan ci ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay militants pour mën a jël li nga xam ne rek moom mooy seen xalaat waaye tamit moom Pierre ba léegi rek. ma ngay àddu que ni Ousmane Sonko ci ay fan yi néew dina génn ak ak mille détenus politiques dinañ génn ci li nga xam ne rek moom mooy euh, prison ba mu nekk nag mbir moo xam ni moom ba léegi rek ma ngi koy daal di euh, àddu ma ngi koy daal di wax et que prison Macky Sall na ngir euh, libérer détenus politiques pare na ngir libérer ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko ak ñoñam yi nga xam ne rek jamono ji caabi daf leen daal di féeti ginnaaw moom nag Pierre Goudiaby Atepa la nga xam ne rek moom nee wàllum dil ak du am ci boobi lee mbir waaye nag seen fa bëgg Sénégal daal di génn ci guute gi nga xam ne rek euh, ci la daal di nekk pour que mois ñu mën a am euh, développement waaye tamit am benn tension boo xam ne au moins dina apaiser wu euh, politique gu Sénégal dox comme niñ ko xamee woon ndax jamono ji gis nañ ne tension yi bëri na loolu manifestation par ci par la bëri na te la ko waral du lenn lu dul report bi nga xam ne président Macky Sall moo ko tudd ndiki 3 février 2024 bii di ginnaaw bi ko waxee lañ nemmeeku manifestation yi daal di daal di juddu ñu nemmeeku aussi ay mouvement daal di juddu ci ginnaaw loolu lépp rek ngir ñu taxaw ngir euh, dëgëranteeg bopp ki nga xam ne mooy président Macky Sall ngir mu bañ a reporter election yi fii ba 15 euh, décembre 2024 dinañ ko reporter ou pas l' essentiel dañ ci daal di xam dara mais Ousmane Sonko comme ni ko Pierre daal di xamale euh, que ne ci ay euh, fan yu néew rek dina daal di génn ñu xoolal ni li ni mel ba xam ne fan lay daal di mujjee waaye tamit nag moom maître El Hadj Diouf aussi maire ba futt rek la daal di am ndax ni ki démb janoon na ak taskatu xibaar yi di xam xamle position ci amnistie bi nga xam ne rek mu ngi koy dégg ne dinañ ko defa Ousmane Sonko ak ñenn ci ñi nga xam ne rek ay détenus ginnaaw bu mu jëndoo ko taskatu xibaar yi nag moom nag ki nga xam ne moom mooy Maître El la mu daal tijji la mu daal tijjee euh, kàddu mooy que dafa daal di qualifier Ousmane Sonko ne ab criminel la waaye itam nit la koo xam ne rek mën naa ne euh, maanaam wàllum yàq ak li nu mel daf cee daal di nekk waaye tamit saagakat la ci wàllu kilifa diine yeeg li maanaam daal lépp loo xam ne lu bon la rek moom Me El Hadji Diouf daal dina koy euh, qualifié ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane euh, Sonko ci wàllu amnistie boobu yi nag moom euh, nee na bu ñu amnistie ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko maanaam dañuy effacé cinquante manifestants yi nga xam ne rek daal ñàkk seen bakkan maanaam cinquante morts yi nga xam ne am nañ ko ci dañ koy daal di effacé waale et tamit dañuy yàq wala dañuy annulé bépp liggéey boo xam ne rek magistrat yi ñu ngi ko doon def contre ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko ba tax na. moom Maître El Hadji Diouf ma ngay woowaat président Macky Sall di ko xamal ne ko euh, sa ennemi démb euh, mënut a nekk sa xaritu tey nee na loolu c'est impossible euh, mënul nekk et que moom itamit nee na sax président Macky Sall toogoon na fii daal di xas ki nga xam ne moom mooy Pierre Atepa Goudiaby ne ab escroc la kon lan moo waral tey mu ñëw maanaam Pierre Atepa bëgg nekk ci digganteem moom ak ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko moom nag nee na li mënu koo xam ne te Ousmane Sonko moom nee moom moo doon woote li nga xam ne rek moom mooy wàllum euh, violence moom moo doon woo ndaw ñi à que rek ñu daal di génn yàq ak li ni moom moo doon créer euh, maanaam defar li nga xam ne mooy ay cocktail molotov ndax ku ne xam ne ne moom Maître El Hadji Diouf diggante ak Ousmane Sonko euh, mësuta neex ndax dañuy dem sax bañ naan est-ce que amul lenn loo xam ne rek jàppal na ko ko ndax à fois ci ay sorteem dañuy gis que ne dafay dal leaderu Pastef bili ki nga xam ne rek moom mooy maanaam ki nga xam ne rek moom mooy leaderu génération bi nga xam ne rek jamono ji moo fi daal di nekk waaye tam mooy l'espoir de toute une jeunesse dañuy gis que ne kat moom Me El Hadji Diouf à chaque fois sorti yom rek dañuy gis dafay daal di dal ki nga xam mooy Ousmane Sonko nee nag bañ koo jàppee ba léegi gis nañ ne jàmm dafa daal di amaat ci li nga xam ne rek moom mooy euh, réewum euh, Sénégal waaye nag ci wàllu amnistie euh, moom d'accord ci te du ci mës a d'accord te bu sañoon moom Ousmane Sonko kenn du ko amnistie ba naa dañ koy génnee fa nga xam ne rek moom mooy Cap Manuel ngir rek mu duggaat ci li nga xam ne rek moom mooy langum politique bi ndax li ni mel moo nekk bëgg-bëggu ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall ba tax na buñ fa daal di jógee dañuy dem ci Mamadou Lamine Massaly moom mi nga xam ne moom mooy borom Thiès ndax gis nañu ci manifestation yi nga xam ne amoon niki 9 février vendredi moom moom Mamadou Lamine Massaly gis nañ ko mu daal di yor li nga xam ne rek moom mooy ab arme daal di jubali ci manifestant yi mu nekk nag mbir moo xam ne ñëpp rek dañ koo daal di euh, metti lu bu baax a baax a baax baax ci lañ gis ki nga xam ne moom mooy maire de est maire de Thiès est ki nga xam ne mooy maître Ousmane Diagne bokk ci euh, coalition Diomaye président moom nag moo daal di euh, yëkkati boo daal di porté woon plainte ki nga xam ne moom mooy moo Mamadou Lamine Massaly ba jamono ji mën nañu wax que ni moom nag mi ngi ciy daal di mi ngi nekk ci euh, guuta eston bi nag mënuñoo xamagum exactement lan moo waral mu daal di jot ab convocation mais lañ cee mën a jàpp rek wala nga xam ne mën nañ koo xalaat mooy que euh, est-ce que nekkul euh, plainte bi nga xam ne rek maître Ousmane Diagne moo ko daal dugal euh, contre ki nga xam ne rek moom mooy Mamadou Lamine Massaly ndax arme bi nga xam ne yoroon na ko daal di koy jëmale ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo doon manifester ñi xam ne ñoom ñoo doon yëkkati pour wax la nga xam ne rek moom moo leen daal di métti ci réewum Sénégal rawatina élection yi nga xam ne ñeen daal di dàq moom nag Mamadou Lamine Massaly Massaly lañ ko daal ji accuser rek mooy que daf doon euh, maanaam assassiné ay euh, manifestant yor li nga xam ne rek moom mooy ab arme à ci manifestation yi nga xam ne amoon ndiki vendredi 9 euh, février bi nga xam ne moom la ñu daal di génn moo tax ki nga xam ne mooy meeru bu Thiès Est daal di génn rek euh, moom itamit daal di porté ji euh, plainte Mamadou Lamine Massaly ba tax na am na am na ab convocation boo xam ne euh, daal di xaarandi ba xam boobile mbir fan lay daal di mujj est-ce que li ni mel moo tax ñu daal di convoqué Mamadou Lamine Massaly wala dafa amat beneen fee et que bu nekkee tamit fee bi nga xam ne moom la yoree arme à feu bi tamit sénégalais ñu ngi xaar rek ngir ñu daal di ci indi li nga xam ne moom mooy ab leeral ndax manifestation am nga jël sa arme jubali ci ñi nga manifestant yi wax dëgg fa neex yàlla xaaree wuñ ko ci leader yi nga xam ne rek ñoom ñoo fare ci pouvoir parce que am na ci lenn loo xam ne am na benn décret boo xam ne génn na bien vrai que xaaree ko fenn que ça soit euh, pouvoir bien opposition mais surtout nga nekk ci pouvoir am benn décret boo xam ne génn na euh, ñuy interdire ñu yor arme à feu fii ba diir fii ba mois de mars yow nga yor ko loolu moom mën naa ne ñu ngi ciy xaar autorité yi bu euh, baax a baax ba tax na buñ fa daal di jógee xam naa fi la daal di daanelee suñu ay euh, kàddu muy xalifa euh, bu Thiénaba moom nag daal dinay woo ki nga xam ne rek moom mooy président Macky Sall ndax fan ñi ngi nemmeeku suñu kilifa diine yi ku nekk rek yaa ngi génn addu jëm ci li nga xam ne rek moom moo xew jamono ji ci réewum Sénégal moom nag xalifa canaba bi la mu daal di xam ne rek mooy que gis na ne wala itam mi ngi wowaat Sénégalais ngir ñu bañ a duggal ci réew mi li nga xam ne rek moom mooy ab euh, violence ndax gis nañ ne jamono ji ni mun naa ne euh, manifestant manifestation yi comme ni ma ko waxee tontu bëri na ba ci am na si ñett ñoo xam ne dañ cee mujjee euh, ñàkk seen bakkan ba tax na xalif bi mu ngi woote ngir ñu daal di ànd ab dal ak tey lijjanti lépp rek ci euh, jàmm ak salaam et autorités yi nga xam ne ñoom ñoo war lijjanti li ni mel nañ ko lijjanti ci jàmm ak salaam que euh, boo meree rek mën naa ne mënatoo lijjanti dara et que itamit nañu bàyyi yàq bi yàq bi nga xam ne ñu ngi koy def moom du samay kàddu mais xalifu canaba bi mooy daal di wax ne nañ bàyyi yàq bi maanaam bien public bien privé yi nga xam ne ñoo ngi koy toj ak li ni mel nañ ko daal di moytu ndax loolu li fajul dara li ni mel la ki nga xam ne mooy Baye Assane Seck daal di xam li et tamit mi ngi woowaat ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy euh, peuple sénégalais bi ngir ñu bàyyi euh, ki nga xam ne rek moom mooy euh, président Macky Sall mu régler li nga xam ne rek moom mooy situation réew mi waaye tamit daal di organiser élection yoo xam ne dafay jaar ci yoon élection yoo xam ne mën naa ne ku nekk rek da ci daal di euh, gis euh, bopp su paree nag daal di jox ki nga xam ne moom moo gagné yii la élection moom itam mu mën a doxal li nga xam ne rek moom mooy euh, réew mi ba tax na bu sukkandikoo ba léegi rek ci xalif bi mi ngi xam lekk ne dénk pouvoir bi armée wala tamit jox ko ci ñoo xam ne mën naa ne amuñu amuñu maanaam xel wala amuñu li nga xam ne mooy capacité gérer ab réew loolu tamit mun naa ne nekkul solution bi solution bi lenn kese la mooy que ñu daal di organiser élection yoo xam ne dafay jaar yoon et que itamit ñu jox pouvoir bi ñi nga xam ne rek mën naa ne mën nañ koo euh, yor daal di avancer yi les propos nag la ki nga xam ne rek moom mooy xalif bi euh, daal di yëkkati maanaam moom daal la mu daal di xamle rek ndax gis nañ sorti président Macky Sall bi wax ci wàllum armée li ni mel maanaam daal suñu sañoon réew mi euh, duñ ko jox ñi nga xam ne ñooy yor armée bi waaye dañ koy teg ci loxo yoo xam ni loxo yu wóor la yi les kàddu nag la ki nga xam ne rek moom mooy xalif bu canaba bi daal di eh, yëkkati ginnaaw bañ ko laajee ci eh, situation eh, réew mi fii la ñu daal di wàcc wee suñu ay kàddu di leen jaajëfal bu baax a baax mbégte la chaque fois di leen dégtal lépp loo xam ne rek moo gën a fës ci wàllum actualité di jaajëfal ñu nekk ci régi bi ak toute l'équipe de solution TV ci kanam tuuti ak yeneen i information waaye nag bu leen fàtte chaque fois rek di abonné ndax ngeen di am information yu wóor leer